bés bu nekk rek manifestation yi di mel ni tuleeg maale ci réew mi foo tourné gis ñu taal dëkk bi moo xam ci kaw tali yi wala sax bërëb yi nga xam ni dañ fay jaaye dundu loole nag fan yi moom la ñu gën a nemmeeku ci réew mi ndaw yoo xamante ni dañoo takku ba dëgër fas yéene jàmmaarloo ak takki der yi terewul nag ni réew mi ci wàllu boppam daanaka dafay gën di salfaañu. ñu ngi commencé di compter ay morts ñu ngi commencé di compter ay décès te boo gisee pays yi yi versé wu dans l'oppression dans la violence yëpp ci nii la ñu commencé benn benn ñuy taal ñuy rey ñuy taal ñuy rey may lance un appel solennel au président de la république mu gën a revenir aat taxawaat parce que ñi ngi wax sëriñ si du sëriñ si ñoom ñooy parce que moom la ñu jox état moom moo état moom moo koy gere il y pas de honte état bu situation amee confu confusé mu génn wax ak nit ñi stabiliser wu loolu amul xont amul gàcce amul kersa parce que ki nga xamee ni yow yaay liñ olof naan borom caq ak borom baatu neen boo demee ba jekku nit ki yow sa bopp yow yaa war a baal da nga war a yor jikkoy ñay koy faral di euh, confondre maanaam di jaawale espace yi am espace politique espace religieux espace politique euh, espace social donc espace politique nag acteurs yi dañoo jàpp ni euh, espace boo xamante ni la maanaam dëgg waru fa am maanaam nit ki nu ngeen mën a fexe ba naxante nu ngeen fa war a fexe ba nootante nu ngeen mën a fexe ba jaayante doole rek dañ ko teg ci mbirum politique boo waxee sax ñu ni la rek politique la parce que xamuñ ni acte yooyu ñu def noonu dafa am njeexital ci société bi ba nga xamante ni ndaw ñiy roy ci mag ñi bu ëllëgee seen i jukko day yàqu ndaxte li ñuy installé bu ëllëgee mooy nit ñi dañuy am nekk dund ci fitna ci en dund ci bañante dund ci yudduwante dund ci euh, siwalante siwalante dund ci lépp loo xamante ni jikko ju naaw la ak complot te jafe naa ni mag ñi nga xamante ni ñoo nekk. alors situation bu confuse la ñu fii ci point E bu ngeen xoolee sama ginnaaw rond point Mamadou Aziz Dabakh juste à côté station Total bi moom la ay daj daji completement pour gën a dugg foofu jël li nga xam ne moo di denrée yi il a fallu l'intervention massive massive de la police pour disperser euh, la foule. comme ni ñu koy defee fan yi moo xam ci Auchan yi ci grande surface yi léegi nag police bi mu ñëwee ci la gën a mun a disperser euh, manifestants yi mu nekk situation bu bu critique bu doy boo xamante ni. Euh, seen euh, seen seen télévision Equivox TV moo ko am en intégrité am ko en intégralité du moins et que instant bi situation bi euh, c'est c'est c'est c'est confuse quoi. ma yaakaar nag bu ñu dellusee ci situation bi pour l'État gën a mën a liir dangay gis ni ñu ngi toj au Auchan yi di toj magasin yi di xeex di taal mais boo gisee magasin yi ñuy toj yi lan moo tax nit ñi bu ñu demee du ñu jël pâte dentifrice yi du ñu jël parfum yi mais ñu ngi xëcce ceeb bi ñi ngi xëncee diwlin bi ñi ngi xëncee boisson yi nga xool état bu amee bu amee tuuti seetlu rek war a xam ne nit ñi xiif nañu dans un contexte boo xam ne période bi ñu romb ay jeunes yu baree baree baree baree bare génn nañu dem bitim réew jaar ci géej gi ba dee ñu jël benn moyen bi nga xam ni moom la ñu am muy la la communication internationale muy géej ne ne ña ngay màng di dem Europe ba léegi état joxewu si point de vue am waxu ci man dama yaakaar ni seen bopp ñoom ñoo fippu ñoom ñoo am lu leen naqadi ñoom ñoo ñoom ñoom ñoo mer ñoom ñoo xiif ñoom ñoo sonn. alors bu ñu xool nag tey jii euh, mbas mi bu demee ba nga xamante ne lompañal na bu baax a baax a baax ñi waroon na euh, créer croissance boobu muy ménage yi muy entreprise yi. Euh, ñu rax ci dolli nag teg ci li nga xamante ni moom la ñu nemmeeku ci fitne bi nga xamante ni am na ci Sénégal nga xamante ni prox ndoll la ci ñenn ñi xëñ na ndaxte toujours lañ naan l'occasion fait le larron Euh, dugg nañ ci daal di am ñu ñu ciblé particulièrement ñi ñu ciblé nag mooy entreprise yi nga xamante ni eh, mooy la ñuy wax euh, l'investissement direct étranger ñu jógee ci euh, yeneen réew ñëw ci réew mi ngir amel fi seen i activité seen i yëngu-yëngu tata ci ñooñu ñooy ñi nga xamante ni ñooy tiré croissance bi léegi seen économie nag fi mu ne nii bu ñu demee ba gën a nërmeelu donc dañuy xam ni kat ëllëgu Sénégal ci croissance dina doy waar bu baax a baax déjà rek ñoo ngi ci ci dundin bu jafe et cetera waaye am na beneen njeexital bu muy am mooy dafay indi genre forme de menace boo xamante ni ba ñi nga xamante ni waroon nañu am njortu ni war nañu mën a ñëw Sénégal investir dooduñ ko mën a def parce que seen i bien bu boobaa dooduñ ko mën a protéger. ni lan moo leen yëkkatee d'abord il faut que nga xalaat ba xam dañu ño dañu ànd ak Sonko wala dañu jóg si seen coobare bopp mais je pense que ni il appartient à l'État en tant que tel état bi nga xam ni moom mooy moom mooy euh, incarner le monopole de la contrainte physique légitime maanaam yow yaa yor monopole fiscal yaa yor monopole sécuritaire monopole militaire yow nguur gi toutes les prérogatives de puissance publique yépp ci sa loxo la nekk yow yaay liir entre les lii nga xool situation bi lan lan moo ko expliquer boo gisee man ni ma ko jàngatee wax naa ko keroog nit ñi du Ousmane Sonko moo leen yitteel du Ousmane Sonko moo leen yëkkati mais l'écrasante majorité boo gisee dañu nekkoon ci situation boo xam ni dañu tënk woon feebaru Covid bi ñëw te feebaru Covid bi sax defe naa ne daf ko daf ko yokk mais nekkoon nañ ci situation insécurité nekkoon nañ ci situation euh, liggéey amul nekk ci situation woo xam ni éducation doxul santé doxul ñu nekk en face d'une jeunesse boo xam ni il faut que nga def différence bi entre jeunesse su 2012 ak jeunesse su 2021. donc voilà police ñu ngi euh, ñu ngi ñu ngi yokk seen renfort boo xoolee ñii ay euh, civil lañu déjà oto bi ñu yoree rek doo teel a xam ne auto auto police la parce que ñun suñu wàllu boobu sax euh, sóoraale wuñ ni oto police la donc station bi la ñuy la ñuy la nekk di doon daj yi ñoo manifestant yi boo xoolee oto police bi sax seen pick-up bi c'est totalement. Euh, ci kanam dañ ko dajji et tout ça et que station bi lañu lañu la attaqué toj euh, verre yi complètement pour gën a dugg dugg dugg si biir jël euh, denrée yi souvent moom la ñuy gën a attaqué ñoom booy moom la ñuy moom la ñuy gën a yittewoo denrée yi la ñuy gën a la ñuy gën a yittewoo beaucoup de dégâts matériels et que li ñu gën a nemmeeku bon ce ne sont pas des des manifestants mais en réalité il y a des gens tapis dans l'ombre yoo xamante ni doo mën a xam lan moo leen tax a jóg et que manifestation yi mooy seen cible privilégiée que ça soit Auchan yi non tol li nga xam ne moo di station yi je voulais dire mooy seen mooy seen euh, cible privilégiée ki nga xamante ni tey mooy ndeyu mbill gi euh, di Ousmane Sonko ci boppam euh, dafa nekkut n'importe qui maanaam malheureusement ñi nga xamante ni ñoo yor nguur gi wala ñoo yor état bi jàppewuñu ko noonu dañ jàpp ni mook ma sàmba ak ma demba donc nekkatut ma sàmba ma demba dafa nekk koo xamante ni tey dafa taxawaay maanaam bu ñu doon xool dafa nekk sax koo xamante ni askan wi da ko jàppee alalam rawatina nag ndaw ñi parce que sooy xool ni politique mas di doxe ci Sénégal ñoo ngi doog a am koo xamante ni ndaw la ba pare te bu njëkk ndaw yi dañoo dem ba mujj amatuñ yaakaar ci mag ñi donc li nekk seen yaakaar nag su fekkee ne dañoo njortu ni euh, lii tax ñu koy tuumaal rawatina complot bi nga xamante ni moo laxasu ci mbir mi ba yegg si fii ñu koy ruumandaat saa yu ñu xëyee ñu gis ni am na lenn loo xamante ni luy wone ni wax dëgg yàlla nii seen mbébét mooy fexe ba seen yaakaar jooju du am maanaam yaakaaru askan bi loolu mooy d'abord li nga xamante ni moo njëkk tax féeterlu bi am. yenn ci boroom xam-xam yi nag jàpp ni bu fekkee ni askan wi xiif da leen a tënk ba tax ñoom ñu bëgg a yeewu seen bopp. lii nag mun na am ay njeexintal ci ëllëgu réew mii rawatina ci wàllum kopparam di maanaam économie bi ba tax na rek ñoom ñuy artu. may fàttali président ni Sénégal moo njëkk nekk pays bi nga xam ni ci Afrique moo njëkk a ratifié le statut de Rome mi nga xam ni mooy consacré affaire crime contre l'humanité ak crime de guerre ak ay génocide ak yëpp yooyu yëpp mu bàyyi ci xel parce que situation bu confusé nii doo xam lan lay jur. nit ñi euh, euh, non seulement ni nga xamante ni feebar bi lompañal na leen ci lu bëri amatuñ te amatuñ fu ñu ko jooy dañuy profité ci mbir mi euh, ngir fépp foo xamante ni am nañ fa yaakaar ni mën nañ fa fekk seen dund pour defar seen ëllëg dañ fay dem donc moo tax ba boo bokk na ci Auchan yi nga xamante ni tey ñoo ngi koy caxat caxatee yu ci bëri nit ñi bu ñu duggee lu ñu lekk lañ fay wër nga gis ni wax dëgg yàlla tamit dañoo am crise politique ba pare am crise donc boo xamante ni économique cest ci mbirum xiif. Sénégal nag wàllum démocratie jamono ji ñoom ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu droit ba tey ñu ngi toog di ko càmbar yëf nag xaw leen ëlëm te li ci gëna a doy waar moo di ay ndaw ñoo si ñàkk seen bakkan. ñi euh, ngi ko gis ci xale bi nga xam ne génn na àdduna fële ci euh, ci ci Bignona ñu koy ñu koy masaw di masaw seen mbokk lu metti la parce que jeune la am mi ngi soog a am vingt ans boo xoolee sax peut dafa bokk ci primo inscrit yi voté wu loon peut-être bëggoon na voté élection yi di ñëw bëgg na yooyu yëpp bëgg na nga xam ni kii am na ambition xamoo lu muy dund ci këram xamoo yaayam la bëgg la mu gis mu sonn xamuloo sax mi ngi mi ngi daw te xamul lan la mais ñoom situation bi moo confuse parce que fu fi mu ne nii seen intérêt rek la ñuy xool nu ñu def ba li ñu bëgg am waaye xoolu ñu naka la askan wi war a mën a tëdde ëllëg te lii nii eh, mën la ci jox benn exemple doon naa ci waxtaan ak benn jigéen boo xamante ni dafa am ay relation ñu am ak ay autorité mais déjà rek li am nii tax na mu ne ah njortu ni man kat bu ma dajateeg moom dinaa ko filmer ndax lan dinaa commencer di am ay preuves yu may pour que ëllëg bu ma ko bëggee ti ma ma def ko lu mel noonu donc te bu ñu xool affaire bi moo ngi dooree depuis 2004 euh, ou mille avec affaire jombas boobu ñu doon fi doon wax nga gis ni euh, yàq nit ci anam yu mel noonu dafa commencé woon di dugg ci jikko yi léegi nag dem na ba fi mu ne nii dañ ko bëgg lawal ba nit ñi def ko ay arme koo bëgg xeex nga xeexe ko lu mel noonu moo xam nga enregistré ko booy wax pour mën ko wone weeje yu mel noonu donc loolu jikko yu bon la te jikko yu bon yooyu ci espace politique bi lay jógee daal di jaar ci espace social bi ba ci espace religieux bi nga xamante ni sax mag ñi war a wax duñu wax ndax lan ku si nekk yàq nañ sa jikko xañ ne am na fu ñu leen jàpp tamit ndax politique moom fu mu duggee fu nekk dafay am fu mu lay galgal ñeen ñi mën bëgg nañoo wax ñe mënuñoo wax du ñu demee ba askan nag di tunk noonu donc fitna rek mooy nekk li nga xamante ni moo mën a yeewu askan bi te mooy fitna yu mel ni nga xamante ni ñoo ngi koy dégmal. coowaluk Ousmane Sonko ak Adji Sarr bi muy doog a daanaka ñu bëri affaire privée lañ ko jàppee woon waaye dafa mujjee law ci dëkk bi ba indi ay jéye yu bari moo xam ay nit yu ci ñàkk seen bakkan. ñenn ñi ñu jàpp leen tëj leen ñenn ñi seen njaboot teggatuñ leen gët. Sénégal dugg ci beneen phase ci wàllu démocratie loo xam ni tiital nañu bari ba tax sax. askan bi fi mu ne nii daanaka jàmm lañ gën a yittewool leneen lu dul moom